yu sangu jigéen di bis bi nga xam ne moom la amal at mu jot jagleel ko soxna bu Bousso Jaaratullah waajuru Cheikhul Khadim di màggal goo xam ni ay millions ngi nit dañuy bàyyi ko fu ne ci biir réew mi ak ci bitim réew ngir ñëw teewe ko màggaluk atuk 2022 bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou xalifa général des Mourides mi ngi ko jàppoon alxamis dëppook fukki fan ci weeru février. ci diwaanu Poroxaan fii ci kër ajaratu mu Dieng dundal nañu fi màggal gi bu baax a baax ni nga xam ne noonu lañ ko fi amalee at mu jot ci sant bernde jaamu yàlla. mboolem lu màggal gi laaj rek soxna si waajal na ko ngir bisub soxna Mariama Bousso bi bokk na ci bis yi gën a kawe ci moom. màggal gi mu ànd kook mbooleem mbokk yi jullit yi soppe yi wëllëre yi ak daara Touba Baxdaad bi nga xam ne mu nekkee ci diwaanu Kaolack nga xam ni at mu jot ñooy ànd ak moom màggal gi ci fani màggal gi ci kër gi bés bu yàlla sàkk dañuy jàng alxuraanul karim ci njàngin wu sell woo xamante nii dañ koy jagleel soxna Mariama Bousso Jaaratullaa ci yor yoru màggal gi ci kër gi amal nañ fi waxtaan wu am solo woo xam ne dafa jëm ci soxna bu Bousso ni nga xam ni noonu la ko mbooleem soxna yi war a royee xam ne ngeen baal ma ci baat bi ci lañ doon wujjee ñoom ñaar muy wujje ci am lu baax wujje ci ëllëgati si sa njaboot mel fi noo xam ne njabootu kenn du ni mel kenn ku ci ne dox jëm ca loola te yàqut dara ci seen diggante ci seen jëflante bu rafet ci seen ànd bu rafet ku ne xam na ne soxna jaara yàggu fi génn àdduna waaye sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu de kenn mës sa dégg ci histoire ñu nettali naqar am woo xam ne nii mbokki way juróom wu jigéen ak ko teg kenn mësu koo dégg te foog naa su su su su ma su amoon su amoon lu nit ñi noppi noppi du ñàkk bis nga mës a dégg ku ko wax wala boog ab noon wax ko boog ndax ab noon bu la xamalee lu ñaaw bis dana ñëw mu waxal la ko te kenn mësu koo dégg cib soppe kenn mësu koo dégg cib noonu kon loolu ba tey jëflante bu rafet ak ànd bu rafet mooy li nga xam ne moo ko wundu gis ngeen ne nangul gi nga xam ne soxna Anta Ndiaye nanguloon na ko soxna jaara ak waa këram rawatina sëriñ bu mag bi ngëneel li leen yàlla defal ñi ngi nettali ne sëñ Mamor Anta Sali bi muy waaj a génn àdduna ta woo sëriñ bu mag bi di ko dénk boppam ak njaboot gi soxna Anta da koo dégg waaye daa daa dem ci njabootam ci seex Anta leeral ko li mu dégg gi xiirtal ko ci mu gaaw jox boppam sëriñ Touba ba ñu bari sax ci la ñuy sukkandiku naan seex Anta moo njëkk a jébbalu ci sëriñ Touba radiyallahu anhu foog naa loolu jafe na lool ci sunu jamono ji wuute naag li ñuy gis. ndax kenn ku ne euh, ci li ñuy gis li ci ëpp mooy kenn kuy nangu sa mbaaxug sa mbaaxug njabootug euh, ki nga séqal kër sa wujj ci waxin am na de waaye bariwut kenn ku ne soo sañoon sa njabootay gën su geneen njaboot gëneet doo ko nangu te loolu weddi dogalu suñ boroom la nangu dogalub suñu borom du wàññi dara day tax sax nga mën caa jariñu ndax soxna Anta ba mu déggee loolu xam ko su ci tegoon tànkamit du tee moom du tee asamaan si moom dana tiim jant bi tiim weer wi rek te kenn du ci mën dara waaye teel a nangu gam ko teel a nangu ak yéene ju rafet jëm ci àndal foog naa lool nag am na jàngat boo xam ne nii war nañ ko cee def bu baax a baax kenn ku ci ne ka nga xam ne moom nga nekkal ci sa kër ka nga xam ne moom nga bokkal di jaamu yàlla nga xam ne da ngeen a bokk di wut yàlla lépp loo xam ne yàlla jox na ko ko cib cër mu neex la lépp lu yàlla joxub cër ak njabootam mu neex la nga ñaan yàlla sag njaboot barkeelu ca sag njaboot am ca yiw woowu foog naa loolu lu baax a baax la loo xam ne mën nañ koo jàngate ci diggante bi nga xam ne moo xewoon seen diggante ñoom ñaar waaye euh, li nga xam ne ba tey mën nañ ko cee jële ci soxna si ak li nga xam ne moo xew fii tey ci ci poroxaan muy bis bi nga xam ne moom lañ koy fàttaliku mooy ñu xam ne nekkal yàlla rekk moo wóor nekkal yàlla moo wóor ak foo ko mën a nekkale ak lum sori soreek lum ruqe ruqe bis dana ñëw yàlla fay la lum ruqu ruqe ruqe ruqe nit ñi ruqar ko nekkal yàlla wóor ak lu mu gàtt gàtt ndax soxna si xam ngeen diir bu gàtt la dundu ci àdduna niñ koy waxee fanweeri at ñett fanweeri at ñett yëpp nekku kook sëñ Maam Mor Anta Sali kon am na diggante bu mu nekk ki waajuram am diggante bu mu doog a dem kër kon ku ci génnee loolu danga xam ne la cay des du bari kon nekkal yàlla ak lu mu gàtt gàtt rek moo am solo soo ko defee rek yàlla fay la ku ne xam ne ne barab bi ñoom biñ fi jógee yàgg na yàggaat na lool. kenn xamu ci dara wala kenn dundalaatu ko waaye sun borom ab dencam du yàqu sun borom ab dencam day ñoŋ saa yu ko waree génne dana ko génne te foog naa génne gi nag moo am fi mu ne nii nii nii bu ko defee kenn ku ci ne nga jël ci ay bind jéem koo jàngat gis nga doomu aadama maanaam meññatum liggéeyam ci sun borom bu ko yàlla nangoo li ci ëpp du ko fekke mën na ko bañ a fekke wala tuuti la ciy fekke bariwaana koy déggub liggéeyam koo xam ne ñuy ñuy xéewlu ciy xéewalam di ko ca sant te moom fekkewu ko wala boog tuuti la ca fekke waaye li am solo mooy nga def loo xam ne nii jullit yëpp dañ koy jokk lante ba bis penc foog naa loolu mooy mooy mooy mooy gudd fan waaw ndax gudd fan ak yàgg fi dañoo bokkut sëñ Murtada radiyallahu anhu waxoon na ko dafa am genn kilifa gu ko doon defal muy jàpp ba mu yàgg mu ñaanal ko ne ko ñi ngi ñaan nga yàgg fi lool am fi junniy at sëñ bi ne ah waaw junni moom daa bari lool sax di junni moom daa bari junni lu ko nit di doye daan ne gudd fan ak yàgg fi dañoo bokkut mu ne yàgg fi moom da ngay fiy nekk rek at yi bari lool nee na gudd fan nag mooy nga def ci fi ci wàllu lislaam loo xam ne dañ koy jokkalante rek du fi jóg ba saa taxaw foog naa lool nag moo moo jara moo jara bàyyi xel maanaam fexe ba gudd fan te bañ fee yàgg parce que yàgg fi amut solo lool gudd fan dëgg-dëgg moo baax waaw nit ki mën na fee mën na fee gudd fan te du fi mën na fee mën na nit ki mën na fee yàgg te du gudd fan boo fi yàggee te guddoo fan soo delloo fa nga jóge woon da nga xam ne yàgg fi gudd fan a ko gën ku fi mën a yàgg nag boole ci gudd fan moo gën waaye gudd fan ak yàgg fi képp suñ leen di màndaxe danañ xam ne gudd fan moo gën yàgg fi ñi ngay gis ñii ñëpp seen seen seen seen résultat yu rey dañoo gudd fan te yàgguñ fi foog naa lii soxna jaarat am tey képp kuñ ko jënde woon ci li des ci sa dund doo fi fanaan tey ndax lii mu am caaxaan mayewu ko kon gudd fan la def waaye moom yàggu fi kon nag loolu tamit yaakaar naa bind la boo xam ne mën nañ ko cee jàngate mooy ñu xam ne dëgg-dëgg nag sun borom am nag pay ñu xam ne tamit doomu aadama pastéefam akub coonaam ba muy daj ngir liggéeyal yàlla jërut muy yàkkamti de pay ga faawu mu ñëw moo xam dana ko fekke moo xam du ko fekke waaye la am solo mooy soo ko fekkee wut tamit yool ba di la fekk foofu foo nekk rek ndax lii nii li ñuy tudde sadaqa jaariya la at mu jot doomu aadama yi daje fii di ko fàttaliku di ko ñaanal ñii di jàng alquran ñii di jàng xasaayit léeg-léeg bu màggal ñëwul sax kenn day toog ba mu yàgg mu ne maa ngi dem poroxaan siyaare ji soxna si te moo ne day am na soxna yu ko magoon am na yuñ tolloo woon moom am na ñëw gannaawam ñoo xam ne bañ génnee àdduna ak léegi kenn dawalut oto jëm ci seenu barab naan dañ leen di siyaare kon foog naa li mu am nii am na lu ko may loola nag kenn ku ci ne danga cee war a jéem a jariñu bu fekkee euh, la ca aju woon ci wàllu diggante nit ak borom këram da nga koo weesu ci waxin nga fas yéene koo dabaatal ci sag njaboot parce que loolu tamit nag mooy li am solo nag ci jamono ji te li tumuraanke sun jamono ji mooy borom njaboot yi léegi dañoo waxatutak njaboot gi bari na xale yoo xam ne nii liñ xam ci soxna jaara mooy mooy woy juru sëriñ Tuuba mooy borom poroxaan waaye xamuñ ndax moo moom poroxaan moomu ko kañ la fi newoon lan la def ba rëg-rëg ji mel nii foog naa loolu moo jar di leeral xale yi mu doon ay bind ci ñoom ñuy xam ne soxna jaara day nangami at la dund borom këram la nekkaloon ca barab sàngam nii la fa nekke woon ak borom këram nii la fa nekke woon ak ay mbokki daaraam nii la nekke woon ak taalibe nii la nekke woon ak dëkk ya ak am di jàmm ya di ko nàmputal gone yi ngir ñoom suñ demee ba toll ca suñ ko mënta dabit ñu jéem di ko roy waaye namputal gone yi ci soxna jaara ci anam goo xam ne ñoom duñ ca jariñu daanaka anam giñ ciy nàmputale gone yi mooy bu màggal gi jotee rek ñu rëg-rëgi ne damay dem poroxaan ba déwénati foog naa lool de lu baax la waaye li ko ëpp solo mooy nga suuxat ci ñoom jikkoy soxna jaara di leen li jaar-jaari soxna jaara ndax moom kat loolu la jàngale woon wax nañ ne sëriñ bu mag bi nga xam ne moom mooy way juram te muy góor sax da ko daan waar naan ko bokkoon na ci baaxu gaayu baax ya de di taxawal guddi dégg naa sëriñ bu mag bi booba tuut tànk la muy def bu guddi jotee rek mu daal di jóg moom taxaw mel ne ndax li ko soxna si ne dañ dañ daan taxawal guddi moom mu jàpp ne taxaw noonu rek saxla di di di tàmbulee foofa ay naafila ak ay jëf yu baax yoo xam ne te kooku jigéen la mënoon na ne xaj na man lii du sama waaye lépp muy wane ne yar ak suuxat lu baax ci gone dafa war ci waxtu wu ne kon kenn ku ci ne ci ñun li ko war mooy ak njabootam mu fas leen yéenee namputal ci jikkoy jikkoy soxna si namputal leen ci melokaanu soxna si namputal leen ci ci ci ci doxiinu soxna si yi nga xam ne ci la doon dox ak borom këram ci la doon dox ak ay mbokki daaraam ci la doon dox ak donga yi ci la doon dox ak xarit yi ci la doon dox ak am di jàmm yi namputal leen ci ay jikkoom yu rafet yi nga xam ne nii ñëpp xam nañ ko namputal leen ci pasteefam li nga xam ne soxna si euh, wane na ko ciw yoon rikkuwaay nañ koy delloo si am na gone yoo xam ne tey suñ doon dem kër nga ne leen xasal duñ xam sax luy xas duñ xam sax luy fas loolu yaa koy wax gone gi bala mu caa àgg muy dugg ci nopp bi muy xam lan la muy xam ne doomu aadama daa war a am pastéef dafa war a am yikko yitte ju yëkkatiku dafa war a ànd ak yéene ci lépp loo xam ne nii da koy def nga tàmmal ko gone gi ndax loolu foog naa mooy li nga xam ne nii moo ëpp solo ci sunu dund gi léegi ndax ñu baree bari dañuy jëf di jëf di jëf ba jëf ja jeex te duñ ca am ab yool ndax yéene da ko dut lal te mbokk yi yéene lu ama am solo la innamal amalu binniyaat la yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax su ma ne laa jox ma bidong bee sax nga di ma ko jox fas ci yéene jaamu yàlla ak am ci lu baax jigéen suy fóotal borom këram na ca fas yéene jaamu yàlla ak am ci lu baax ndax yéene daa am solo sooy togg añ fas ca yéene sooy tàngal kafe fas ca yéene su la woowee nga koy wuyu si sax fas ci yéene ndax yéene yooyu mooy laltaayu jëf ji jëf su àndut ak yéene du baax julli buñ lay limal faratay julli yéene lañ cey jiital aj màkk suñ lay limal farata ye yéene lañ ciy jugal gépp jaamu yàlla suñ lay limal farata ye yéene lañ cey jiital kon képp kuy jëf la nga war a jiital mooy yéene te yéene ji tamit na rafet te sell ndax jaamu yàlla goo gis su àndut ak yéene yéene ja rafet sell jëf ja sell tamit suñ borom du ko nangu soxna jaar lam xasoon yéene ja dafa sell te rafet jëf ja ca topp tamit sell rafet moo ko may lii kon foog naa loolu mën nañ koo jariñoo ci li nga xam ne nii ci dunduk soxna si la ci lu gàtt li ci tegu nag mooy ñu xam euh, bis bi nan lañ ci war a taxawee ñun ak lan lan lan moo ñu ci war ndax wax dëgg yàlla rëg-rëg ji nag bari na moom ñun ñëpp xam nañ ko rëg-rëg ji rëg-rëg dem poroxaan ji bari na poroxaan nag ñi fiy dem wala ñi fi ñëw dañoo bari te wuute kenn ku nekk ak fi wut màggal gi day xumb ba foog naa bu dul màggalu Touba amut genn gu ko gën a xumb ci senegal xaj na ci li ma jàpp boog man naa am nag ma juum waaye lu ci mën a xew ñi fi daje ñëpp moom bokkuñ ay jubluwaay ñi xumbal màggal gi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bokkut ñiy màggal si ndax màggal gi kenn ku nekk ak li nga fi wut ka nga xam ne daal lal am njaayam di jaay si màggal si wut dafa ñëw jaay si transporteur ba nga xam ne client yee ko fi indi tey su client yi dakkee mu dellu fa mu ko daan wute ji kooku dafa dafa dafa liggéey si ki nga xam ne nii daa ñëw raas si dem di wut mbooloo mu mu bari ba kenn sàggane téléphone portable am mu barkeeloo ko kooku tamit daa ñëw ngir lool yi mu jóg su ëllëgee feneen fu ko am mu tuxu fa kon yow mi nga xam ne doo kenn ci ñooñu bokkoo ci ñeneen ñi ma tuddutit fexeel ba bul bul bul jël sa bopp dugal ko ci équipe boobu te doo ko yëg te lu ci bëree bëri danañu dal léeg-léeg da ñëw ci màggal gi ba dellu te doo fi ñaanal li la tax a jóg muy fàttaliku soxna si wala ñaanal ko yàlla doo ko def am na ñoo xam ne suñ màggal see seen bopp lañ fiy nekkal danañ lekk danañ naan danañ dem ca barab ba siyaare ji danañ wut ndox ma ndox mi kuñ koy wutal seen bopp suñ siyaaree ca barab ba buñ demee seen bopp lañ fay ñaanal bari na ñoo xam ne danañu dem ca barab ba ba jóge fa duñ fa jàng alxuraan wala xasaayit wala ñu tudd fa yàlla ne yéene naa yoolub lii ma jàng soxna jaara loolu da cee am solo te nit ñi dañ koy fàtte dafa bari ñoo xam danañ màggal si ba dellu maanaam bu soxna jaara doon def benn liste boo xam ne ñi ko ñi ko ñi ko dolli aw yiw ci fan yi yow doo ci bokk ndax bi nga ñëwee li nga def lépp yow ci ci ci sa ci sa poos nga doon def lekk nga naan nga dem nga wuti ndoxum euh, teen ba boo yóbbu sa kër dem nga ca barab ba tàllal say loxo ñaan sa aajooy àdduna yépp jóg dem te ñaanaloo soxna si dara loolu nag foog naa ku nekk war na koo daw ci ñun kenn ku ci ne war naa bàyyi xel sooy demate ci màggal lan mooy fay sa taxawaay lan moo lay yëkkati ci ban catégorie nga bokk yow su fekkee bokkoo ci ñi ma tuddoon ñëpp nga xam ne yow ñëw màggal si ngir yàlla ñëw ñaanal si soxna seere la ji yëkkati nga fexe ba ñaan googee nga def ko soo ñëwee nga bañ a bokk ci ñi nga xam ne dañuy ñëw rek euh, nekk fi ba ñibbi jot rek nga ñibbiwaat loolu yaakaar naa képp ku koy def euh, yaa ngi dolli mbooloo mi de waaye yaakaar naa ñi tax nag ñu woote yow yow bokkoo ci kon loolu tamit bëggoon naa ñu bàyyi ko xel bu baax a baax bàyyi xel bu baax a baax tamit euh, li nga xam ne nii moo war a jiitu lépp ndax euh, màggal gi foog naa li ci jiitu mooy wéyal wéyél ndigal yi nga xam ne moom lañu ñu boroom jox bariwaana ku dem ci màggal koo xam ne lam baaxoo woon a def ci ay jaamu yàlla lu ci baree bari day manqué ba ba muy ñibbiwaat ndax xat-xat yeeg kurkur jeeg coow leeg rëg-rëg ji moo lay yóbbaale far ba la nga daan def ci ay lawraat la nga daan def ci jàng alquran la nga daan def ci zikrullah la nga daan def ci nangam la daan def ci nangam lépp far boo bàyyiwut lépp it rëg-rëg ji la jàpp ba far nga fàtte ko foog naa nag màggal la ci jiitu mooy fonk ndigali sun borom yi li la sun borom war a warlul ci yow ci sa jëmm nga fonk ko nekk ca leneen loo cay dolli nag nga doog ko caa dolli waaye yaakaar naa la nga war a jiital mooy say farata bu la waxtu raw waqf ba nga daan jàng jàng ko werd wa nga daan def nga def ko su siyaare jotee nga dem ziyaare ji su ñaan jotee nga ñaan foog naa loolu dëgg dëgg dëgg dëgg nag mooy màggal gi waaye ku yaakaar nag da ngay màggal si eh, nekk ci jaara ji comme niñ koy waxee rek ba fàtte lépp loo xam ne dafa aju ci mbirum suñ borom ah yaakaar naa yow nag sag màggal kon des na kon màggal gi tamit nañ bàyyi xel ne li ci jiitu mooy ndigali suñ borom yi li la war ci sa diggante ak sunu borom nga tàmbulee ca doog a dem ci leneen loo xam ne moo ca topp kon li nga xam ne nag moom lay moom laay moom laay mujje ndax balaa tisbaar a jot foog naa mooy ay ay ay ay ay ay soññe soññe soññe gi moom damay soññ sama bopp rek di leen soññ li may soññ sama bopp di leen soññ mooy li li li li li li sëñ bi di soññee toujours rek mooy li ñu fi indi te bàyyi ñu fi ni ko sëñ Abdou Lahad daan waxe am na lu ñu fi indi te moo ñu fi bàyyi mooy jaamu yàlla wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuni loolu la alquran wax yàlla li tax mu bind ñu indi ñu fi mooy ñu jaamu ko indi wuñu fi ngir fo indi wuñu fi ngir caaxaan lim ñu fi indee mooy jaamu yàlla adduna du kërug nooflaay kërug kërug kërug coona la kërug liggéey la adduna aw waar la ab tool la boo xam ne nii dañ cee war a liggéeyee la yàlla nooflaay ba ëllëg la ku bëgg a nopp lu fii nopp lu fële euh, da ngay sonal sa bopp rek wax nañ ne sëñ bu mag bi daana wax naan wàññileen tëraay bi wàññi leen tëraay bi ndax bisa ngi ñëw de bëgg tëdd bañ tëdd foog naa nag bis boobu ku koy bàyyi xel eh, yaakaar naa doo tala tëdd doo tala nelaw doo tala xàll tañ xam ne àdduna bi jeex na ba noppi waaw àdduna bi jeex na mooy kenn ku ne yow yaa war a xool sa bopp ba nga juddoo ba tey nga xool ba xam sëg dund ndax xam nga lan moo ci desam déet loolu nag képp koo xam ne ump na la looy def rek war nga koo xam foog naa li ñuy wax naan ab saaku soo ko yoree di ko tibb bam xaaj sa xel war naa nekk ci loo jënde beneen saaku wala sa xel nekk ci ne boo wottu diñe dana la dikkal benn bis kon kenn ku nekk ci ñun na bàyyi xel loolu xam ne àdduna bari na ay rëg-rëg de bari na coow de bari na uh, xal-xal de waaye dëgg ga dëgg-dëgg mooy li tax sun borom andi ñu fi mooy ñu di ko jaamal jaamu te sax ci lu baax te sax ci liggéeyal yàlla sax ci yéeneente lu baax sax ci tàppexol yi sax ci ànd ngir yàlla sax ci moytulu bon ak moytu ab safaan yaakaar naa loolu mooy li ëpp solo nag ndax xam nga jaamu yàlla ci boppam gu sell dafa jafe jaamu yàlla yomb na de bis bu set sama classe gi da ngay gis ñuy julli jàng alxuraan werd bu ko defee nit ñi defe ne ñoom kenn lañ wala ay niti yàlla lañ wala dañoo jege yàlla waaye suñu taaraaroon maanaam suñu suñu demoon fa fa jëf ya di àgg mën naa am duñ fa fekk seen jenn jëf ndax jëf inna allaha tayibun laa yaqbalu illa tayiban yàlla dafa dafa dafa sell dafa baax du nangu lu dul lu baax sa jëf balaa àgg ca yàlla dana jaar fu bëree bëri ñu càmbar ko xool ko waaw foog naa sama classe gi seeni jëf su fekkee fukki station la war a jaar du romb sax première station ñu daat koy falak mu jëm na le yow nag nga yaakaar ne àgg na ca yàlla loolu nag ndax sa bopp la moo tax nañ bàyyi xel loolu bu baax a baax jéem a sellal jëf yi boo gisee ma ne ñu jéem a bàyyi safaan loolu dafa xaw a gën a wóor lool ndax wax nañ ne am na menn mag bu baax moo xam ne da doon wax naan comme bu ëllëg yow xiyaamee dañuy teg balance yi teg fii lu baax teg fii lu bon lu baax li su watee lu bon li rek xam nga ne kon texe ñeel la safaan bi bu ameet safaan ba ñeel la mu ne da ngaa war a fexe ba benn balance bi moom bu am dara. bu ko defee bi ci des nag lu ci nekk rek doy maanaam balance lu bon yi bu ci dara dara dara dara newut léegi beneen balance bi bu ci benn nekkee rek mu wat ko kon li gën a wóor mooy bàyyi lu bon ginnaaw lu baax li moom da nga ciy nekk ñot ñoti te wóoru la ba xam ndax première station lañ koy refoulé wala deuxième wala troisième ah foog naa ak a jafe nit koo xam ne dana taxaw julli ba julleem jeex te xelam demut ci lenn lu dul yàlla loolu yombut de te julli daa am nuñ koy defe fa waylun lil musalliina su ko yàlla di wax taskara ñeel na ñiy julli du borom julli yu baax yi koor tamit noonu joxe asaka def lu baax mboolem xeeti def lu baax yépp daal su sellut mën naa bañ a àgg ca suñ borom te su ca àggut doo amuk pay moo tax nag loolu baax na lool waaye nañ gën a yittewoo bàyyi ab safaan fexe ba sun benn balance bi daal mu bañ a diis sun benn balance bi bañ a bari ay bagage mooy waral beneen bi bu ci lenn dong nekkee sax doy kon loolu foog naa ab yóbbalal boo xam ne kenn ku ci nekk ci ñun war na koo yóbbaloo war koo bàyyi xel xam ne suñ borom loolu rek lañu fi indee sunu kilifa yu baax yi nga xam ne kat ñoom lañ nekkaloon Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu kenn ku ne xam na ne ci lu baax rek la doon xëy ci lu baax rek la doon gont lim daan toqen lim daan lim daan toqental ci euh, ci xel ak xolu mbokki taalibe yi ko toppoon mooy topp yàlla ak wéetal ko ak bàyyi lépp luy ab safaan da daan wax naan rajaa u jannatin bila taaati bi sunnatil maaxi xururun yaati yaakaar àjjana te toppoo yàlla nee na ku koy def dangay ngay nax sa bopp rek kon nag moom ay waxam du waxi caaxaan te moom ca loola la nekkoon ginnaaw moom mi nga xam ne moom lañ yaakaar nag ci loolu la nekkoon te ci loolu la doon woote yaakaar naa kenn ku nekk ci ñun nag la gën ca yow mooy nga nekk ca loola ndax mooy waral bu ëllëgee fu mu nekk kat ngeen mën faa bokk nekk ndax moom kat ku sell la ku yàlla nangul la te kenn mënta xalaat muy dëkk lu sellut nag kon buñ nax suñ bopp ku bëgg fu mu nekk nga fekk ko fa ah yaakaar naa nag dangay nekk ci li ko li mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi nee woon na al mar'u ma'a man ahabba kenn ku nekk ka nga sopp ngay àndal ëllëg waaye sopp mooy lan xul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni laa ku sopp Serigne tubaa ni nga koy firndeele mooy nga nekk ci ay ndigalam nekk ci ay tereem mooy waral nga sopp ko mooy waral nga nekk ci lam nekk ba bu ëllëgee fu mu nekk nga fekk ko fa waaye képp koo xam ne nii yaa nga ca leneen na nga xam ne da ngaa jàpp ne jote ngeen dara rek waaye jotewu leen dara niñ koy waxee toujours sëriñ bi day wax naan kullu muridin nangam kullu muridin bi yaluusu yasadu wa innahu min al ada mubaadu murid bu aju ci man rek dana texe ah loolu day wax juñ mën a dëggal la ndax moom du waxi caaxaan waaye kan mooy murid booba yow kan moo ne la yow ca ñooña nga bokk kon fexe ba bokk ca murid yi nga xam ne bu nekkeek sëriñ Tuubaa fii dañuy nekk ci ay ndigalam bu ëllëgee ñu ànd ak moom fa mu nekk foog naa loolu nag aw sas la te tëdd nelaw du ko maye toog di xoole du ko maye nekk ci ay ndigalam guddi ak bëccëg mooy li nga xam ne nii moo koy maye. kon yaakaar naa loolu daal ci lu gàtt moom laa bëggoon a euh, seddoog mbokk yi rek xam naa xaw naa gàtt xaw naa jaxasoo tamit waaye ni ma ko waxe woon léegi rek sëñ Fallou mi ko doon def day borom xam-xam. te moom yàgg naa wax man nag damay nab nabi di sàkku xam-xam rek te it xaj na mbir mi bett na ma jékki-jékki rek di wax nii du am solo lool waaye lu ci mën a xew kenn ku ci ne su fekkee dégg na fi benn baat rek bu am njariñ boo xam ne jàpp na ne mën na koo jariñoo rek yàlla na ko jariñoo te yàlla defal ko tawféex ba mu doon njariñ loo xam ne day law te saaroo ci mbooloo mi fi teew yépp kenn ku nekk ci ñun kenn ku nekk ci ñun sa sa soo fi amee bi yool ci màggal gi jàpp naa ne dana am lum ca am moom lum gàtt gàtt ndax xaj na lii ginnaaw moom moo ko waral yaakaar naa lu fi waay am ci bi yool yàlla mën na ko ca jox te yàlla na ko yàlla def kon ñu ngi koy sant moomit ci taxawaay bii mu taxaw ak euh, yoon wii mu ware wan ko njabootam wan ko mboolem koo xam ne ni xam na ko ci di sàkk lu baax ak di ko jéem a séddoo ak nit ñi ndax lii séddoo la wax dëgg yàlla ndax kenn ku fi nekk rek tey nekk nga ci condition yu lay tax yow moom nga mën a def sag màggal ci ni nga ko bëggee kon foog naa lu nit def ci yool rek ci luy waral yool rek doyut ndax moom lu yool bi gën a bari rek moom it lim ciy amee ci bi yool gën a bari te foog naa loolu ñëpp danañ ko yéene kon ñu koy ñaanal moom it yàlla gën koo taxawu gën a yokk fan wi ak mboolem ñu fi teew ñëpp rek ñu dund ba barab yu mel nii bari ci dëkk bi mbokk yi fi nekk ku ci ne rek dem ba am foo xam ne yooyu da nga fa mën a di def lu mel nii ndax mu gën a yaatu rek ndax lépp day tax rek tiyaaba ji gën a yokk kon ñu ngi sant mbokk yëpp. wallaay bég naa ndax wallaay bég naa wallaay bég naa mun maa wax nag lépp nag seen taal bég naa ci yow ndax dama laa jur mu dëkk lu yàgg nag dëkk bu neex dëkk te dëkk ji dëkk ji jafe lool nag mu dëkk dëkk bu neex nag fa nga war a teg fépp nga teg ma fa nag nag dolli ma ak gëm nag dolli ma ak jaamu yàlla dolli ma gëm Serigne Touba dolli ma gëm judd ci yonent bi sallallahu alayhi wa kon yow sant naa la bu baax a baax a baax a baax sant ñii nga xam ne nag damaa ànd nag ñoom démba ñi ma ànd ak ñi ma gis tey ak ñi ma ci ñëw ñi war a ñëw te ñëwuñu ak ñi bëgg a yéene te ñëw te ñëwuñu sant naa ñëpp ñaan sëriñ Tuubaa Mbàkke mii nga xam ne nag yàlla may na ko loo xam ne mayu ko kenn te gëmuñ ne lawul kenn ku nekk la la sa xol te bëgg nga ko ci lu baax yàlla na la ko yàlla defal barke sëñ Tuubaa Mbàkke barke sëñ Mbàkke Madina barke sëñ Mbàkke Madina mii nga xam ne nag sama ñaari waajur ña moo ma jàppale ndaxte kat njàmbaar amul ku ñu dimbalee am tey nag dañ maa dimbali kon sëñ Mbacke man na dimbali na ma gannaaw sama ñaari waajur sëñ Baar bu ma seqoon àddina dimbali na ma kon sant naa bu baax a baax sant naa yàlla bu baax a baax tent boo xam ne yàlla rek laa ko seetlu lool jërëjëf Fallou Fallou si la jërëjëf ba ma sañ kër gi ba tey yaa ak man ak ñi ngay àndal sant naa ñëpp sunu maam Maryama jaaratu naa fa ñépp jaaru jeyim te jaaratu laay sunu ku ne màggal ni bernde moo tax ajaratu Yeumou Dieng jël na ay matuwaay yu am solo waa waajal bernde yu yaatoo yaatu yoo xam ne moom la njagleeloon mboolem gan ñi nga xam ne ñoo ñëwoon ànd moom màggal gile bàyyiwul dara mu budul ko nekk rawdatu ma jaara ki duñ dem jannatu laay njarab ci boroxa njarab nee leen ko alhamdulillahi tuuba li man baala xaay maam jaaratu laay am jaaratullaay alhamdulillahi karim ndegam Tuuba ñaare dee leen ko alhamdulillahi karim ndegam Tuuba li man baala xaay maam jaaratullaay aleykum sijaaratullah yaa kaamilu alxuraanul karim yi nga xam ne moom lañ doon jàng ci fani màggal gi biñ demee ba ci bisu màggal gi ci ngoon jot nañ ci jàng limu fukki kaamil ak ñeent ci noonee lañu jàng xatmu bi njiital ak mboole ñu fi teew ñëpp di xam le ne ñun ñoo ñi nga xam ne ñoo doon taxawe njàngum alxuraan mi ah, jot nañ fee jàng fukki kaamil ak ñeent ci njàng mu mu sell mu dal lépp ñu def ko muy hadiyatu li sayyidatina soxna bu so ñaan yàlla ñu yàgg koo teewe te lépp luñ fi def araf bu ne suñ borom ful ko jotale ko ci yool bi ak mboolem ñi xam ñu koy def ak ñu ko ñun ñu ko def ak ñu koy def ñëpp sëriñ te ñun ñëpp ñu bokk ñaanal soxna si ak njaboot gi yëpp suñu borom gën a guddal fan wi te wéréel ko eh, ci barkeb alxuraan ci doon jàng ci barkeb soxna si barkeb guddi gi mën na ko yàlla na ko yàlla def bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqim siraatal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi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 allahuma arhamna bilqurani alkarim anfaxna bilayati wa sikrin hakim waj'alhu lana hujjatan yawma ddin allahuma anfaxna bima sarrafta fihi min alayati wa sakkirna bima darata fihi min almasullati wa kaffir bi tilawatihi anna sayyi'at innaka mujibu da'awat amin allahuma taqabbal minna xatma alquran wa tajawaz anna ma kana fi tilawatihi min sahwin aw nisyan aw tahrifin aw taqdimin aw taxirin aw siyaajin aw tawilin ala xayri ma anzaltahu aw tajirin inda lisan aw tajirin inda tilawatihi aw sayqil lisan aw wuqufin bi xayri waqfin aw idxamin bi xayri mudxamin aw idxaamin bi xayri bayan faktubu qara'uhu muaddiyan xaqahu والساكن ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واحتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر كتابنا وسبق الميزان بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكنا وأسكنا وسط البلاد وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحساننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعل أنيسنا في المحصى ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة ومنقذنا في الفتنة واحصنا به من الشيق والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اقسم بس السعادة آجالنا وحقق الزيادة آمالنا وقرم بالعافية قلوبنا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسلب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك سادنا والثقة بك صغرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه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 tiyaaba aku yiw ñeel soxna su tedd soxna Mariama Jaaratullah ak mbooleem ak njabootam ak mbooleem jullit yëpp fu ñu mën di nekk rek mbooleem jullit yi nekk barsàq yëpp suñ borom dolli seen yërmaande ak ak dolli leen ak njëggal suñ borom def jàmm ci rek mi def ko ci mbooleem def ko ci mbooleem adduna bi yëpp ñu ngi eh, sàkku ñu fas ci lool ñëpp na ci fas lool te ñaanal soxna si suñ borom yàggal ko fi mu yàgg koo taxawee yàgg woote bis bi mbooleem xayraat yi ñu fi def yiw yi ñu fi def bernde yeeg jaamu yàlla yi lépp rek sikkar yeeg alxuraan yeeg xasida yi yëpp yàlla na suñu borom nangu lépp na ci ñëpp fas lool بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وفرج عن أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الصلاة وبهذه الأبيات آمين يا رب العالمين بحولك فاستجاب لهم ربهم ولا توجهوا شيئا من الأكدار والآفات إلا من إلى من خاطبك بهذه الصلاة بهذه الأبريات فرج بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرجا حبك سالم من أمتي اكتب صلاة وسلاما للنبي في الآل وصحبه سبيل التجنبي سلم بجاهه وجاههم مها أمته يا وحدا ليقمها تفضلا على سبيل الإيمان بالفرج يا واهب الأمان جميل أوزل لجميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين وتب سباء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم هب لمن يحبونك ما يمهر هب لوجهك الكريم وجه فرجا بلا أسل لمن يدمون رجاء هب لي سبيل الإيمان والإسلام خير بشارات بلا ملام ما هو تضر عبدك القديم يا خير من يجول بالتقديم رفعت صايعه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بحق وجهك الكريم هب له إجابة يا من ما له بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب مجيب ثم يا هب للذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين ظلموا مصليا مسلما على الرسول في حزبه يا من هباني بسر اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الصلاة وهذه الأبيات من قائلهما بقدر حسنة الساتك ومن كل من دعا بهما بقبول حسن يقبته فيه كل من لم يتضرع بهما في الهال والمعارف لا آفر ولا كثير ولا قدر ولا سبحان ربك رب العزة اجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا وعلى سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد امين امين يا رب di leen balu àq te di leen ko baal ñu ngi leen di siyaare ci bis bu màgg bi di ñaan yàlla sunu borom mi dara tawul mu may sëriñ Mouhamadul Muntaxa aw fan wu gudd lool ba lépp lu mu yéenee liggéey ci lislaam bi suñ boroom man loo ko ko kartanal ko ca te mu man koo defee na ko bëggee di ñaanal yàlla sun boroom ah, di ñaan yàlla sun boroom mu defal soxna sii di soxna Mariyamu Jeng fan wu gudd lool wu ànd ak wér yokk barke bi may ko jàmm te fan woowu ak barke boobu ak jàmm joobu roogalaat ci ak njabootam ba ji ay sëtam yal na yàlla def mu fekke ay njariñi sëtam ah, ñun ñépp ñu fekke ko ah, xam ngeen ni tey jii bis bu màgg la di bisub soxna jaaratullaay soxna Maryaama Buso mu nekk bis boo xam ni bis bu màgg la bis bu rëy la ci noonu su loolu amee nag tax sëriñ bi woote ko jullit yépp ak taalibe yépp jóge fa nu nekk ngir ñëw jooxe seen yéene ci soxna si kenn ku ci nekk fa nga jóge yàlla na la yàlla dimbali ba nga delluwaat fa ci jàmm liñ fi ñëw di ko ñaan ci màggal gi ak di ko fi jaamu yàlla lépp yàlla na ko yàlla nangu a ah, soxna Maryamu ñu di la xamal ni li ñuy jëkke mooy dinañ wax ci ñetti tomb du gudd nag ndax xam ngeen ni waxtu wi fi mu toll xaw naa guddi te itam yitte yi bari na ah, soxla yi waaye li ñuy jëkke rek mooy cantuk imaam fàllu Saaw ci soxna sii di soxna Mariamu Jeng soxna Mariamu jërëjëf imaam fàllu nee na mi ngi lay sant bu baax di lay ñaanal yàlla suñ borom féq saw fan ba mu gudd lool yokk sag wér wéral la may la tawfiix ba lépp loo bëgg a def ci lu baax nga defe ko na ko bëggee sun boroom kartanal la dimbali la dimbali sa njaboot sëñ Fallou nee na mu ngi lay sant bu baax moom ñii nga xam ne ñoom la àndal ndax wax dëgg yàlla taxaw nga ko sagal nga ko euh, suturaal nga ko euh, nee na xam na ni doyloo nga ko te itam euh, euh, mi ngi lay sant bu baax ci doyloo gi nga ko doyloo ak wóolu gi nga ko wóolu ak tànn gi nga ko tànn ndax bu la neexantey jii lii di ëttub kër gi lépp ak mbedd mi fees ak jàng jàngkati alxuraan mën nga leen fee indi de kon soo bàyyee ñëpp ñëw woo ko bàyyi ñëpp ñëw na ko kon loolu ku ci nekk xam na ni kóllëre la goo aman ak moom bu yàgg kóllëre googee nag ba léegi yow yaa ngi koy jooxe yal na yàlla sun borom fay la mu di la xamal ni ba nga ko xamee ba tey nee na sa loxo bii musta teggi ko ci moom foo toll yaa ngi koy nemmiku di ko toppatoo di ko di ko jox di ko di ko di di di maslaa ak moom loolu nee na mi ngi ciy sant yàlla di la ci sant bu baax nee na màggal gi saa yu jubsee danga koy woo xamal ko ni ko bu àggee bay ba bëgg àgg ca bis ba ni ñëw moom ñi muy àndal oto bi ñuy jël bu ñëwee ñoom dërëm waru leen ci yow yaay fay lépp yaay fay oto bi wiññiku euh, làmb sa poos jox leen addiye joo xam ne addiye ju am solo la te loolu lépp yaa ngi koy def ngir yàlla rek ak bis bi ak soxna jaara kon yàlla na la yàlla fay kon moom nee na moom moom ñi mu àndal amuñu sag fay yàlla sun borom ci boppam moom moo am sag fay moom moo la mën a fay tamit yàlla mi nga xam ne ne moo amu fay moom kon yàlla na la fay moom kon lott na ci fay la xanaa nag ñaana la yàlla kon dañ koy delloo ca waxi yonent bam noonu su leen ab jaam ab jullit bu leen defalee tiraanga na ngeen ko ko fay su ngeen ko ko munta fay ngeen ñaanal ko yàlla sant ko te ñaanal ko yàlla kon nee na mi ngi lay sant bu baax di la ñaanal yàlla mi dara tawul lépp loo bëgg yaa ko xam waaw ah, yàlla na ko yàlla defal ci barke Serigne Touba. ayaasa min laa wi ndaje wali إبليس ناديت بيا ولي أيا سمين الله وندجي ولي إبليس ناديت بيا ولي أيا سمين الله وندجي ولي إبليس ناديت بيا ولي ayaasa min nilaaw inda jeewali ibliis yiis na deytoo biyaawali nafaali xayri laaw xablu fi ndari biyaali baadir kadari غالب إلى المناكر عزب عن الله في الكرم بصار قبل مبارز وعن خلبصار داني الريم عند دومي لو بما أغناني التصومي yaa saara lil munaa la daali berweli man xaadali ma xaaban kullu weli li xaada la badirin usuuda man zaazal wasiya wal xasuuda yaxuudu li xaysu akunu laaw tabsiira laa illaa xayla laaw يقود لي حيث أكون الله تفسير الله وعلى جنبا لله خار وصلت عند قلبا وسانني أما يجر بلوى كتابتي قبل لدى البور كفرياتي يلا المدور علمني عليم عند زائران مما يساء والكفان كافرا لي ردا وزاتعا مد لي الأنوار عند الظلمات وظالمين من كفاني صدمت سعادتي عند الإله إلهي بزارات عند ذوي الملاي لم ينوني عند ذوي الخمور سواردا باخ لو أموري طهرني الله لدى الكتاب من السخاء ومن كل عتاب أكرمني عند ذوي الإدراك من خادني إلي بالإدراك ناجيت بيا نسي ريا ولي كفيتني إبليس عند الجوالي diirub ñetti fan fani màggal gi bernde yi dakkul benn yoon ci kër gi rawatina ci bisub màggal gi muy bernde yu yaato yaatu yoo xam ni mbooleem taalibe yi fi daloon jox nañ leen ci lu kawe seenum njoxtu ngir maam jaaratullaay

bamba lillah عليكم بسجارتنا يا دون مريم يا مام جارة الله السلام عليكم بسجارتنا ginnaaw bernde yooyu sax ci la ñu guddi gi ci njàngum xasida gu yaatu goo xam ni ànd nañ ci ak kuréel daara Touba Bagdadi mbokk lii lañ leen jëlalee woon ci màggaluk poroxaan gi nga xam ne ajaratu Maremu Jàng moom la doon dundal ci këram gi nga xam ne moo nekkee ci diwaanu poroxaan nekkoon alxamis dëppook fukki fan ci février atum 2022 ñuy santaat bu baax a baax mbooleem taalibe yi nga xam ne soppe yi wóllëre yi mbokk yeeg am di jàmm yi nga xam ni ñëwoon nañ ànd ak moom màggal gile. moom it ajaratu Mariamu Dieng ñu koy santaat bu baax a baax di ko gërëm ci taxawaay bi ci mboole matuwaay yi nga xam ne jël na ko ci màggal gi jagleel ko mboolem gan yi nga xam ne ñëwoon nañ ànd ak moom bis bi di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaanalaat Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides mu gën fee yàgg lool te gën a wér ñu yàgg ànd màggal gi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu